ci suñu bind yi weesu tudd nañu juróom-benni yëf yu ñu weeru koor jàngal yooyu buñ jàppee ci ñoom dana ñu dimbale ba suñu dund yépp di weeru nitu yàlla ka julit ne jullit bëccëgam yépp bëccëgi koor la guddeem yépp laylatul qadri la lan lañu yàlla defal loolu yaa rab ñu tuddoon koor ci boppam ak occasion koor ni muy répété ci at tudd fonk gi nga xam ne fonkoon nañ ko julli farata yi ci biir weer mu wara sax ñetteelu bind ak habitude bu yiw bi ñu kor jàngal mooy julli guddi yonentu sallallahu alayhi wasallam dana wax ni ci julli gannaaw jullik farata mooy julli guddi maanaam naafila xam nga jàng nañ ne kuy naafila ci koor muy qiyaamul lay te gëm ak séntu yiw yàlla tax yàlla dana la baal loo jiital ci bàkkaar mbokk yi loolu nag entraînement la application bi dafa war a feeñ gannaaw ndax duñu jaamu ramadan waaye jamu rahman lañ ki borom ramadan yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa saxbihi wa sallam wax na ci xadis joo xam ne daa ko fekk ci xilya fekk ko ci tabarani fekk ko ci imam xakim muy xadisu sayidna sahl mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee jibril daf ma dikkal ne muhammad ay yow mi yàlla yónni muhammad alayhi salaatu wassalaam aish ma chita dundal lu la neex fa innaka mayit bés dana dikk nga faatu ahbib man chita soppal ku la neex fa innaka mufariqu bés dina dikk nga tàqale koog moom waamal ma chit defal lu la fa innaka majziyun bi xamal ne basa ngi dikk danga fayu sama borom taala dina fay mu ne ko waalam xamal anna sharafa almumini naka teraangaay ab jullit ki gëm qiyaamuhu billah ana honneuru jullit mooy taxaw ci kanam boromam di julli guddi quel honneur wa izzahu euh, dignitéem nag istignaauhu an innaas mooy doylu wëllis li ci loxo nit yi honneur dëgg mooy ñëpp di nelaw nga taxaw ci sa kanam borom di julli xam nga ci koor bari na ci ñun ñoo xam ne foog nañ ne buñ naafelewul sax koor gi baaxut kon nag bu koor gi jeex ñu sàgganee naafila qumil layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalila ñu fonk ah, julli guddi ndax guddi ku nekk yaa nga wéet ak sa sama borom nag ne ah danaa xam man ñana ma sopp bokk rawatina wutkatu xam-xam yi rawatina ndonga daara yi te ñun ñëpp ay ndonga eh, al imam al xatib al baghdadi nee na al bayhaqi nee na bés dama fanaan kër limaam Ahmed rahmatullahi aleyh ne mu indi ndox teg sama buntu néeg ne bi mu yeewoo ñëw gis ne wala bi mu xëyee ñëw gis ne ndox mi dara jot jogu ci subhanallah kuy sàkku xam-xam te du julli guddi moo mënul dégg loolu nañu yàlla boole ci way julli guddi te boole ñu nangul ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam